لك خطاب يا غريب يا مجيب يا من به لا سمعني غير هب لي وللذين قطع له إياك نعبد وأنا أستعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا يا زيرات المستقيم الهب لنا يهبتنا من قبلنا ñu wax tënk leen li nga xam ne noonu la programme bi tëddee dañuy jox sëñ Mbàkke Lo mu wax leen bis bi li ko waral ak li tax ñu daje fii buñ paree ñu jox sëriñ Cheikh Diop ci ndigalal sëñ Xaadim gay mu joxe cant yi nga xam ne ñi jàppewoon ci màggal gi fan yi yëpp ba niñ jekk suñ jamono ñu fi ñu toll sëñ seex Diop mooy def cant ci ñooñu bu ko defee buñ paree jox sëñ bi mu ñaan bismillah suñ Mbàkke kon kolore gu mag gi ñi ngi ko joyal jëme ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi nga xam ne semaine bii lépp yéen a ngi dégg nuy jukkat ci lenn lu bokk ci lu bari lu mu def loo xam ne jëf ju ca ne benn ba dong fees na njàmbaarug nit te mu boole ca yu bari ba booy waxtaan danga naan li ma doon wax daaw ak daawaati jéeg duma ko wax kolore googee nu boole ak Cheikh mu Moustapha moo waral bi mu wàccee dem dëkkaale ji ak boroomam booba ak léegi di quarante cinq mille neuf cent quarante ak léegi di ay at yu xaw a takku ñu am devoiru fàttaliku ko ñaanal ko waaye fàttaliku ga gën a rafet nag mooy génne ca jikkoom ya ak comportement bi ak ndono li mu fi bàyyi nga xam ne damay wax ne ab congélateur la boo xam ne dafa fees dell su jamono demee ba bangam ba xiif mën nañ caa génne benn mis wi boo xam ne jamono ja jëpp danañ ca suur mu des kon duñ ko mën a delloo ci congélateur bi kon kooku lañu ñu ak moom boole ci bis bii mu jàngale nag moom mu Moustapha kóllëre waxuma ci wayjur bi wala ci wayjur yi ndax lépp lu bokk ci soxna Aminatul almardiya jeexal na ca coloré lépp lu bokk ci sëriñ Touba jeexal na ca coloré lépp lu nekk ci lislaam te jëmmoo woon ak sëriñ tubaa agsi ci moom wala di yóotu ci moom bëgg ca agsi Cheikh Moustapha yeggale na ko ba yeggale ca lu kawes njort waaye nag mébéti sëriñ bi itam Cheikh Moustapha def ca loo xam ne ba léegi foo geesu ci yoon wi nga mën a laaj lu ca sëñ Modou Moussa def soo geesoo ndeyjoor mën ngaa bañ a jeesu càmmoñ da nga jàmbat bala nga doon soxla lépp nga dellu si ca waaye geneen kóllëre it am ci ci sunuy maam sunu yaay soxna Fatma ndax dégg ngeen sëñ Moussa yi wax ne ba ko sëriñ bi yebalee mu dem Kajoor ba mu demee ba ñëw la jël sirrub Kajoor loolu moom du fi xaj ndax li tax soxna ma doon sirub kajoor war nañ koo xam ndax ñett ñi mu génne saa xewar ma sëriñ kokki ale Demba Moxtaar ña ca gën ñoo ñaa daje ñi koy lijjanti bu ñu ko doon lijjanti mën nañ cee yendu waaye doo tànn benn sànni boo tànn dangay teg ci kanam waaye moom itam kóllëreeg mbokk ya la fa dikkee ndax li soh soxla ba tax serigne touba doon ñaan ñuy nekk ci wet gi te diko dimli ci liggey bi mi liggey dafa naa ne soxna Aminata bu mu dikkee signature booba legi ma nga fa te ci beyti gi la xewé won te ñu ngi fi ci ke soxna Fatma gi waye ba mu jëkke jaayante jaayante gi mu jëkke jaayante fi wa barzak ge la ko jaayantal ne ñi teddi ci armée li bu nu delu wat ci kër yi fa te fa mu jóge xam nañ na neex na kon nak soxna Fatma moma liggéeyam bu mat mo waral yu bax yi wacc te borom bakan yu bax yi mu len di xegn mu ne Serigne Modou mom bis bi mu ngoy te bëgg ñepp ngoy ci moy bis bi Serigne bi jógee ndiaré mu indi ko Touba nga xam moy mooy mouride lolu du fi xaj waye nak lu jar di fàttaliku la ndax moy lepp ndax bu amutoon dara du am ñi ngi sante bu baax nak di sante ne njabot gi ñu fi seen xel fu nu toll ak seen xalaat ak seen bët ñi ko jël teg ko ci mag ñi lañu fi nekke woon li ci doy firinde rek mooy jamono de liy këfe bari na fi lool te gox buñ wax ne këfuñu kenn day jafe naa am waaye gox bii nu nekk day boo wàññoon téeméeri ñu ñu këf doo ci génn kenn ku jóge boor fi wala boo ku mel ne man dong lay doon kon loolu rek lañ dénkaan di jariñ ñi ngi sant bu baax di beral nag cant gi soxna yi ndax euh, ba fi soxna si di nekk ñoo nekkoon ca kanam bi fi soxna si jógee it saa yoo rombee fii kër gi xum rek soxna yee fi ne kon nag damay damay faral tudd toujours su may tudd soxna Xadi Faal Xartaaba lay tudd loolu nag la koy waral mooy daanukat gi ma gis ci moom te mu nuru ko wajuram mu tedd wa te ñëpp xam ne sëñ Cheikh Fall xattaaba moom mat na exemple ne ñëpp nag kenn ku ci ne seeni meññint kenn ku ci ne mel na noonu waaye man daal bàyyi Cheikh xattaaba moom bu ma kenn dey sa mbokk nag moo tax <laughs> waaw kay waaye li ma gis ci moom yaakaar naa ne kenn ku ne mën na caa roy kon maa ngi taxawlu foofu rek di ñaanal sëriñ Ousmane mii ci sunu ginnaaw li ko ñëpp yéene yàlla na ko dal waaye moom itam li mu yéene daaru xuddoos yéene ko yoonu murit gi yéene ko lislaam yàlla na dal lislaam su ko dalee rek xolub Seydina Muhammad dana sedd ndax doo ko seen mukk muy dox ci boppam loolu moom mën naa koo seere saa yoo ko gisee soxla sëriñ bi jot na mu jóg di ca dem soxlaam du ko tax a jóg dem fenn kon yàlla na ko yàlla téye fa mu toog te jalal ko lu ko doy sëkk bal lu mu soxla lu mu soxla sax dana faju waye nak ku ñepp di ñew ci yow say soxla dana bari ndax soxlay nit ñi ñoy doon sa soxla waye borom kër gi nu jakar lool mom da musu te teju ben yon te kenn musu ñew delu wat te say poste disul muy seigne Cheikh Mbacke genn Fatma def na seigne Amdi Fall ñom ñemay jakar lool fekk nañ ko fi jox na nit ba tàyyi mu génn wat laaj ne ndax sëriñ bi jaawalewut lim ma jox da bari waaw xamewul ku bok ci mom ak ku bokul ci mom ku am soxla la xam yalla na ko yalla fayal ñi nga xam ne ni coloré mo leen bolé ak kër gi moy ñi mu ak serigne Modou Moussa mu bolé leen ak serigne Touba yalla na seen coloré googi sax té tasaaroo té dara bañ ci rot ben bis té bis bi nu yag ko taxawé lu yag té liñ ci soxla ci defaru lepp sunu borom defal nuko ci xamna bala ma tejj nak ma sante serigne khadim Gay ndax euh, lu yàgg dëgg la waaw lu yàgg dëgg la te soxna Xadi yaakaar naa ne ñi fi yàgg ñëw ñëpp am na ñoo xam ne xàmmee nañ leen ci ñoom kon nag sëñ Xaadim cant laa ngi noonu yaa ko moom. lii du gudd ndax kàddu yi cant rek lay doon ak kàddu ñaan sëriñ Xaadim nee mi ngi nuyu bu baax ak ziar sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ziyaar itam mboolem jabaru sëñ Tuubaa gi yépp mu ngi ziyaar bu baax itam sëñ amul Moxtaar mi nga xam ne mooy xalifa kër gi moo ki rakkam ak i sëtam di leen ñaanal ñu bokk fi yàgg te nee itam mi ngi ziar bu baax sëñ Abdourahmane Mbacke mi nga xam ne moo toogaay jotaay sëñ Cheikh Mbacke ne Fatma di ziare itam sëñ Moustapha Mbacke Mouhamad ak mboolem kilifa yi kër gi leen ñaaral ñu bokk fi yàgg fi te wér euh, sëriñ Xaadim itam mi ngi ziar bu baax sëñ Moustapha Cham mi nga xam ne tey moom lañ fiy xoole soxna Xadi Fatma te yàlla dogal mënta teewe jataay bi waaye mu yebal sëñ Ousmane mi mi ngi koy nuyu di nuyu bu baax itam di ziar suñu Ousmane mi nga xam ne moo toogee ab jataayam ak mbooloo mi mu àndal yëpp sëriñ Xaadim nee na mi ngi yëkkati ay cant yu jóge ci sëriñ mustafaa moomu waaye itam jóge ci kilifa yi yooyu ma njëkk a tudd léegi muy cant yoo xam ne ni dafa jëm ci mbooloo yi nga xam ne naka jekk ñoom ak soxna si ñoo daan ànd liggéey bi di ko taxawee te ñoom ñëpp itam yàlla dogal tey ñu. teew fii dañ fa daan teewee ci pas-pas ci yéene ci kóllëre waaye nee na mu ñëw ci kuréel itam cant yi mi ngi ci jiital bu baax daaray kaamil yi nga xam ne àndoon na ñoom ci bis bi ci njàngum alxuraan mi ndax bis bi sumu ñaan la kon ñooñu ñoo war a jiitu ci cant yi ak uh, lim bi kon mu ngi sant bu baax daaray kaamil rawatina ji nekk ci bayti waaye itam di sant bu baax sëriñ Moustapha Mbaye Longoor ma nga xam ne ma nga ko doon taxaw itam fële ci jumaa ji yendu fa ak mbooloo mu bari yendu fa jàng alxuraan te lépp rek ngir ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha waaye ne itam mi ngi sant bu baax sëriñ Lo xasida mi nga xam ne itam naka jekk at mu ne fii ci mbaarum li waawul xamdi mi fi lay yendu ak mbooloo mu bari di fa durus alxuraan di fa durus xasaayit si Moustapha genn ci turu bi ñoom itam ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm nee itam mi ngi sant bu baax commission culturelle bu wilaya bi nga xam ne tey <clears throat> naka jekk itam ñoom ñooy jiite njàng mi fii ci biir kër gi te yàlla dogal leen jàng nañ fi juróom-ñaari kaamil ci biir mbaar mi moom itam mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan loolu ñu jàng lépp ca jumaa jaak ci mbaar meeg ci kër gi ak yeneen bërëb yi yàlla na ko suñu borom nangu ful yool bi jotal ko Cheikh Moustapha ak mboolem way daw liñ sëriñ Xaadim nee na itam mi ngi sant bu baax jànkati xasida yi nga xam ne dañoo yendoo yëkkati fi xasaayit ñoom ñëpp itam dégg nañ njàng mi la kóllëre rek la ak Pastef nee itam ñoom itam la tax ñu koy def tam mooy soxna si nga xam ne ñoom moom lañ ko doon defal naka jekk itam loolu sëñ xaarim nee na si Moustapha yëg na ko mi ngi leen sant bu baax di leen di beral cant nag jànkati kër gi ci njiitul am Amdi Fall mi nga xam ne moom itam ku nekk xam na digganteem ak soxna si digganteem ak kër gi la moo tax donte ne mi ngi jëm mag waaye terewul saa bis bi ñëw itam li man lépp dana ko def ngir feeñal yéeneem ngir itam dundal kóolare googu nga xam ne boole woon ak soxna si sëñ am di sëñ xaadim nee na ci sëriñ Moustapha ci turu sëriñ Moustapha mi ngi lay sant bu baax di la gërëm yaa ngi nga àndal ñëpp nag di ñaan yàlla suñ borom mu ngeen tase ak ngërëmul sëriñ Tuubaa sëriñ xaadim nee na itam mi ngi sant bu baax mboolem daayira yi nga xam ne euh, ñoo ngànkoon liggéey bi di ko saytu ci lu yàgg di ko waaj ba tey macha allah lépp sotti nee nag mu ngi ci jiital daayirab kër gi muy turandooy soxna si ak ñi nga xamne ne itam ñooy turandooy soxna fatme ñom ñep ñu lëkkaloo and sen dole, sen sen wu ñak sen doole sen pas-pas sen yene boole ko muy ban lepp rek ngir wëjagal bës bi suñ xaat ne ni mu leen sant baax di leen gërëm dañuy bañ lim nak ngir waxtu xat wi motax waye dal ñu xamne ne sant mom sant rek la te kenn ku nekk xam na ne yeen ñep yeen ci biir motax dañuy baña lim di bayyi kenn te muy jël temps bi waye suñ xaat ne mi sant baax daayira kër gi xamna naa yi buñ ko joxe tege ci loxol seigne Bachirou fay rek mom mu noppé dana xam num koy tasaaree ba ag ci ñom seigne kharim ne tam mi ngi sant bu baaxa baaxa baax wa keur seigne Cheikh Diaw Mansour seen taxaway bu rafet seen pastef ci lu bi jitu bis bi ak bi bis bi yegsee ñoo ngi ci keur gi and ak ñom liggéey bi ñu boole ci génne seenu doole seen pos and ci itam ak taxawu ci fépp fo xamni ne fa taxaw nuñ ko daan taxawé rek lañ ci taxawoon nañ ko lu ko raw sëñ xaari nee na gis na taxawaay bi mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm naka noonu itam waa kër sëñ Rijaal Seck mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm naka jekk dañ daan taxawee rek noonu lañ taxawee ci bis bi itam kon sëñ xaadim nee na ñoom ñëpp seen taxawaay na ko gis na ko tam mi ngi leen di baax a baax di leen ci euh, sëñ xaadim nee na itam mi ngi sant bu baax dongay laxasaay yi muy jamaatul muridina sadiqina ñoom itam naka jekk bis bi seen bis la ñoom ak soxna si ñoo ko daan àndal taxawaay biñ ci war a taxaw itam taxaw nañ ko taxawaay bu mat sëkk sëñ Xaadim ne mi ngi leen di sant ci turu sëriñ Moustapha di leen gërëm naka noonu itam daayira Ahibaahil Xaadim itam euh, seen taxawaay rafet na lool ci bis bi ndax itam naka jekk ñu ñoom ak ñoom ak soxna si ñoo ko daan ànd bi soxna si jógee itam ñu ko ànd ak sëñ seen taxawaay rafet na lool ci bis bi lañ daan def lépp yokk nañ ko sëñ Xaadim nee na gis na ko mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw waaye daal sëñ Xaadim nee na gis na seen i taxawaay yëg na seen i taxawaay mi ngi ñaan lii nga xam ne yéen a ko doon def ngir yàlla ak jëmi Serigne Touba ak kóllëre yàlla na ko yàlla nangu te yàlla nañ tase ak ngërëmul Serigne Touba te yàlla nañ ko yàgg taxawe te yàlla nañ ci yàlla musal ci lépp loo xam ne am ndog la ci zaahir ak baatin defal ñu ay xéwal yu yaatu ba ñu gën a mën a liggéeyal sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. teew naa fii ci turu Serigne Moustapha moom Soxna Khady di sunu mag di sunu xarit. mu doon teewaay bu nga xam ne du ak ñàkk a mën a ñëw moo ko tee teew waaye ak nammam ma teew fi moo tax ma teew fi ñu koy ñaanal yàlla may ko wér te guddal fanam ñu ànd liggéey sëriñ bi ba ca kanam di wax rek ne fii mel na ni tey soxna si daan taxawal bis bi jógu fi ndax bari nañu fi nekk ñoo xam ne ay mag lañu ay kilifa ca moo leen toqi mosuñoo tàqalikoo ak moom benn yoon ci ay góor ak i jigéen ci tey ñu ngi fi ànd ak yéen bés bi waaye bu loolu lépp jàllee ci lu gën a xóot gën a kawe it mooy

ngir jëmmi Serigne Touba loolu kon lu rëy la lu nga xam ne boroom xel mu ne mën na cee jàngat lu bari ginnaaw bi nga xam ne nag ne ñu ngi sant boroom kër gi di ko ziyaare muy sëriñ Ahmadou Maxtaar di gërëm ak sant ak ñaanalit kilifa ak di seex Mouhamadou Mountakha ñu ngi sant bu baax. sëriñ Cheikh Madina ak waa Darou Khoudoss gépp xam ne fii li fi nekk ñoom la fi nekkal ñoom lañ fi teewal ci turu sëriñ Moustapha moom soxna Xadi mu mel ne sëñ Touba dee lenn rek ci kenn mënu koo teqale saa su dara doxee ci diggante bi dañ dem ba leneen dajalenu te kenn du ci mën a ñàkk kon ñu xam ne sëriñ bi rek ay sëriñ bi ñu jàppee ko noonu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ Moustapha mu yàggaat fii lool ci ànd ak wér ànd ak ñun gën lekk ci ceeb bi ba ci kanam incha kàddu yu sëñ Mbacke jiital mu matale sëkk sëriñ seex Kellel Diop kàddu yu cant yëpp nu bokk ko tënk teg ko ci loxo mu matale ko sun kilifa teew ci sun kanam bu waxee ñaan rekk moo cay topp kàddu yi mat na sëkk. taxawaay rafet na mat na pas-pas yi dëgër na lool xolub soxna si sedd na xolub seex Muhammadul Moustapha sedd na xolub sayxul xadim sedd na ku fi ñëw wala nga am yéene ñëw fi yàlla na sa aajo faju ci barkeb sëñ Modou Moustapha Seex Ousmane noo ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ak ci sa pas-pas di ñaan Seex Moustapha moom sëñ Muhammadul Xabaan bis bii way juróom ba taxawaay bi mu ci taxawoon nga xam ne bis yi jiitu ci Touba la ñetti fan yi baraxlu ñëpp xam ko soxna Khady Fatma mu jiite ko njabootu Cheikh Moussa gépp ànd ko ak moom teraanga bu ne lu baax lu ne mu def ko ci dem bàttale bis bi ne yéen ñim nekk ci seeni loxo am ngeen tawfeex ju réy réy réy bis la boo xam ne du dellu gannaaw adduna ak alaaxira la lamboo nu dolli ci jom dolli ci góora ba bu ñëwee kenn ku ne fu mu nekk nu bokk teew fan koy defee defal ko ci lun man ak lun mënut yàlla ngi ci seeg lu nu jomb ci barke sëñ Modou Moustapha jërë ngeen jëf